seen seen yéene rafet na seen taxawaay rafet na am na ci ñoo xam ne àggaguñ ci seen liggéey waaye ragal nañ ni niñ ko waxee noonu rek lañ koy defee wàllu santé itam niñ fi wax euh, moom it noonu koy rafetlu xëy na liñ laajoon lépp ci ay garab amuñ ko waaye li ñu walaf di wax wañ ci benn lay tàmbale bis bis dana ñëw mu àgg fan ko bëgg waaye xeebuñ nag liñ ñu jox wax dëgg yàlla xeeb xeebuñ ko naaw nañ ko noo ngi ci sant di leen ci gërëm te ni nga ko waxee rek ni ko médecin chef bi waxe nañ góorgóorlu ba saytu ko ba ñett yi tax ñu laaj ko ñu def ko ci loolu mooy li ci njëkk mooy faj ci ñi nga xam ne dañuy ñëw ci màggal gi bu desee ñu jox ci daara maam jaara ji nga xam ne juróom gone jigéen ña nga fa di internet ba ci des ñu jox ko dispensaire dëkk bi ñu di ci faj loolu bu ñu ko saytoo fukki mil ak ñaar ñaar yi ñu wax bu ñu ko defee nañ ko war a defee jaar ko fa ñu ko war a jaar te moom lañu wax léegi yaakaar naa boobaa liñ ci bëgg lépp incha allah danañ ko danañ ci danañ ko am di rafetlu it personnel bi ñëw euh, ambulance yi ñu wax lépp noo ngi koy noo ngi koy rafetlu euh, noonu noo ngi noo ngi rafet luñ ci def boo demee kër sëñ bi la ko wër lépp def nañ ko ay def def nañ def nañ ko ñu ngi koy defar ak defar ba sa àggagut xam nañ nii lañ mënoon mënatuñ ko. de mu njëkk daa lañ fi indi lu ëpp lool ci. ci ci ci cabine mobile yi daan nañ fi ëpp loolu ci ci oto yi waaye ni ko gouverneur waxee rek loo gis lu ne dañ koy organiser loo organiser rek ñaare loo ca néew néew doole rek la nga bëgg da nga ko am kon bu oto yi teel lay ñëw ñu yokk bis yi liggéey bi ñu yokk rotation yaakaar naa ni boobaa lu ca manqué danañ ko mën a motti hydraulique ci lay ñu moom noom ñoom suñ njàqare yëpp ci hydraulique la nekk bañ jàppee màggal gi boobu fekk na dëkk bi daanaka ndox amu fi keroog maa ngi la koy wax ci CRD bi ne la Porokhane moom ak caare ne la ndox amu fa ndax booba ñetti forage yi am benn bi amul château d'eau bi li muy génn ci ndox doyut benn ba château d'eau ba dafa dafa dafa dafa day senn nga xam ne benn bu ci jag rek amul loolu nag boo amee ci dëkk ña fa nekk danañ jaaxle buñ nee nag àdduna jëpp danañ fa daje nag xaw ni ñuy def waaye nag ndimbalul yàlla moom bu agsee rek jaam xam ne yàlla rek moo am solo yàlla rek a mën a dimbale yàlla rek a àndal moom rek a mat liggéeyal waaye ni mu ko waxee ak seen taxawaay seen pas-pas seen yéene seen xalaat yu rafet yéen ñëpp ngeen ànd ci ba alhamdulilah tey ji yaakaar naa wàll yëpp suñ xel dal na ci waaye ndox mooy ci raw sëriñ bi wax na ko léegi kon nag noo ngi rafet njort ci ne forage bi nga xam ne PDC def na ko fi muy ñaareelu forage am maa ngi koy fàttali ñaareelu forage am ak pompe yi nga xam ne wax nga ne léegi ñaar yu bees la yoo xam ne eh, danañ nu ko yónnee ak li nga xam ne Sen'Eau def na ko fi ak ak Kofor yëpp bu dajee yaakaar naa ne daaw eh, ndox kenn jàmbatu ko woon te pexe yi ñu am ren ji amun ko woon daaw kon nag eh, rafet nañ ci njort bu baax yaakaar ni rek defe naa incha allah bu ko yàlla àggalee ci ni ñu ko tëralee yàlla mën noo dimbali te ndox mooy lépp. waxtu bu ne dama koy wax courant bi bu coupé woon it ngelaw laa ngi fi. kër gaa ngi fi waaye ndox nag bu ñu ko amul fu ñu jëm waxuma la sax jullit waaye doomu aadama doomu aadama bu amul ndox boo juddoo ndox ngay soxla boo dee ndox ngay soxla booy dund ndox ngay soxla boo ko amul nooy def kon ndox mooy lépp kon ku yàlla dimbali ba amatoo jaaxle ci ndox war ngaa sant yàlla bu baax sant itam ña nga xam ne ñooy sabab ba ñoom la ko yàlla jaarale li ci des nag xëy na mooy euh, courant bi. courant bi moom am naa ci xëy na dama ci xamul dara nag nit moom lu mu xamul dara mën na caa tiit mën na caa jàq mën na caa jaaxle ndax li chef d'agence bi wax léegi wax ne day mel ne oto boo xam ne amul bënn secours moom moo ci am eh, oto bu amul pneu secours nag xamul lu ci gendarmerie xam waaye man xaw ma xaw ma xaw ma xaw ma déli xaw ma du déli waaye moom eh, ki ki dugg ci oto bi moom bu ko wóoree ni oto bi mu dugg amul ko dana jaaxle kon nag eh, coupe yi gis ngeen ko booba tey mi ngi am leeral na léegi li tax waaye taxul man sama sama xel daal dal ci ndax nim nim leeral leen ni jafe-jafe yi ñu ci am waaye nag xëy na moom moom ak bu ànd ak ndimbalul yàlla ak seen yéene ak pas-pas yàlla mën naa def ñu màggal ci jàmm ci ak ak ñoom wax dëgg yàlla at yi weesu moom amuñ leen luñ leen di jàmbatal daaw sax defe naa dimbali nañ ci leneen loo xam ne du courant waaye nag lu ñu mën a defal rek courant bi moo nu yitteel moom lañ seq ak ñoom moom lañ séntu ci ñoom kon nag lu ñu mën a def rek na jëm foofu te lu ñu mën a dimbalee rek ba gouverneur wax na ko délestage am waaye boo boo hors délestage bu amee te amoo courant it doo am benn njëriñ kon nit ñu góor nañ ñu dimbali daal ba lu ñu gën a mën ci courant bi bañ di couper daal ñu ñu dimbali tey courant bi moo yor ndox mi loolu mu ne ñu mënoon wax léegi gis ngeen forage ñu dem am nay groupe waaye groupe màggat lay am yi am am na joo xam ne sa amu amu xalaat leen nag nii nii mel mu bañ àgg ci màggal gi waxuma la sa tàngaay waaye ndox mi rek day day daal di jafe kon nag ñoom yërëm naa suñ bopp waaye yërëm naa leen faaw ñu son waxe sëriñ bi moom moo ëpp doole baatam moo gën a kawe mu ëpp solo moo ëpp barke te sant na leen gërëm na leen ñaanal na leen ànd koog ñun ñi nga xam ne comité d'organisation ñu fi teew ñëpp ak ñi fi teew ñi bokk ci liggéey bi ak ñi ci ñi ci bokkul ngeen xam ne daal ni ma leen ko waxee nun dañ fee nekk nekkal leen fi bu ngeen ñëwee dinu dimbali lu wax leen liñ ko bëgg ànd koog yéen bu defee mbooloo mi lañ bëgg ñu am ko